kon ñu ngi jegal tey liggéey bi ñu dénkoon comité de pilotage maanaam ñi war a jiite xalaat bi ak gëstu bi jëmale ko ci bataaxel bi évêque yi ci Sénégal bindoon addu woon ko réew mi lu mët léegi ñaar fukki at ak juróom te ñu waxoon ci ne nañu ànd ànd tabax sunu réew ci njubte ci njubaay ak jàmm njubaay ak jàmm ñoo war a doxal réew te amul développement bi nga xam ne tu leen ut ñoom sax ñooy tax ba ñu naan développement léegi nag li may wax nekkul tënk lépp lii forom bi lii gestu bi keroog waxoon waaye ma bëggoon rek ñu jàpp bu baax recommandation yi maanaam tegtal yi ndax jëmale suñu réew ci kanam war nañu nangu ne réew mi dëgg def na jéego yu am solo waaye li fi nekkoon te monseigneur yi tegoon ci seen bët am na lu bare li fi nekk ba léegi te mu tegu ci sax leneen lu bees ndege changement yi ndik ay yu bees yi réew mi di jonkanteel moo tax bu ñu jàppul bu baax recommandation yi maanaam tegtal joxoñ yi forom bi fës fësal kon liggéey bi dina doon neen ñu ngi ci ñu ngi jublu ci waajum élection législative yi li ma ci séentu mooy ku ci bëgg bokk mën na gannaayoo conclusion recommandation nu bind ci forom bi mu def ci maanaam leer li nga war a xam ne li xam ne dafa war a jiite dafa war a soxal député yi ndax ñu mën ci jëriñoo mën a amal sunu réew loi yi nga xam ne day jëmloo kanam réew mi kon ñépp ñi nga xam ne bëgg nañu euh, ñaan askan wi mu sànni leen baat am ngeen fii ci conclusion forom bi document bu am solo bi leen mën a leeral bi leen mën a jàppale ci seen programme yi waaye lii forom bi tënk nekkul ne autorité publique yi rek ñoo ko war a def ku nekk ci nun am na ci wàll wàll bi mooy ñu jëkk soppi sunu doxalin sunu dund sunu comportement ndax jàmm ak njubaay gën a fës ku nekk am am na ci wàll am na xeer wi mu wi mu war a war a teg ci tabax tabaxu réew mi te file itam la diine yi mën a fës mën a amal bu baax seen liggéey maanaam ñu yee nit ñi ndax ñu mën a saxal jàmm ak njubaay ci diggante yi ndege développement mënul am bu fekkee ne jàmm ak njubaay euh, sampuñu euh, saxuñu ci réew mi. mantation bu leer kon day gën a yombal mbir mi te conflit foncier yi bare nañu lool ci dëkk bi ñaareelu ñaareelu tegtal bi ma wax mooy ñu fexe ba ñëpp mën a jot ci ndox mi ñu ngi jóge ci forom bi ci wàllum ndox. am na ay dëkk yu bare yi ñàkk ndox mu sell te sax am na euh, li nga xam ne bu ñu ko mënoon euh, def ba ndox mi wàll ndox mi bare defe naa jeunes yi ak femmes yi dinañ ci mën a liggéey bu baax. am na ay programme yu bare yi nu fexe ndax jeunes yi ak femmes yi mën ci jëriñoo ñu ni il faut que nag ñu xool bu baax programme yooyu. ñu évaluer leen ñu auditi leen ndax xam ndax lépp a ngi jaar ci yoon ñu ni itam ñu fexe ba euh, indépendance des institutions maanaam ñi nga xam ne ñoom la ñu sant ñu xee corruption ñu fexe ba ñu may leen kattan bu doy ba ñu mën a doxal seen liggéey na moo waree déclaration de patrimoine bi mooy ki nga xam ne takkan nañ la ndomb war nañu xam foo jógee ak li nga indaale boo génnee itam ñu xam fi nga tolloo ci am-am ndegee da ngay gérer yow la alalu mbooloo te alalu mbooloo dañ ko war a aar waruñu ko boole war waruñu ko confondre ak alalu poos sa alalu poos ñu ni itam am na ci sunuy mbokk yi amee laago laago war nañu fexe ba ñooñu itam ñu gis seen bopp ci développement bi ñu gestu leen ñu amal leen ay programme ñu toppatoo leen a ah, guerre bi ci Ukraine wane na ne il faut réew mi fexe ba li ñuy dundee lu bare sax ñu amal ko fii parce que importation yi mën na am jafe-jafe bu mbir mi continuer nii moo tax ñu war a fexe ba nit ñi dellu ci mbéy mi di consommer itam li ñuy béy li ñuy produire am na ay jéego yu bare yu am solo yi nu def waaye defe naa doy itam euh, affaire justice bi euh, xam naa ne mu ngi dox waaye mën nañ ko gën a doxal ñu fexe ba ñi féetewoo wàllu justice bi ñu mën a amal seen liggéey ba ñu am benn gàllankoor ndax képp ki nga xam ne yaa ngi ut justice nga mën a yaakaar ne li nga fa li la fa yóbbu di ko am bu baax am na benn recommandation bu ne presse bi presse bu amul démocratie du am kon nañu bàyyi presse bi ñu mëtale seen liggéey na mu waree ñu bàyyi presse bi mu doxal information yi waaye presse bi itam respecter dignité personne yi parce que dafa am doole. kon war nañu fexe ba presse bi mën a yore liggéeyam euh, ni ñu ko bëggee itam ndax presse day doxal day doxal démocratie. Je pense que la personne la plus habilitée à à répondre à cette question l'a déjà fait. Cette mission nous a été confiée par les évêques du Sénégal. Et le représentant des évêques aujourd'hui, Sainte-Salle, c'est lui qui nous avait envoyé en mission. Et à la fin de la mission, c'est à lui que nous avons remis le fruit de notre travail. Et il vient de dire devant vous qu'il est totalement satisfait donc, du travail qui a été fait. on ne va pas être plus royaliste que le roi. Nous considérons que nous avons euh, réussi la mission qui nous avait été confiée avec, avec euh, toutes les lacunes qu'une mission peut avoir, parce qu'une mission n'est jamais parfaite. Mais nous pensons que ce soir, nous, ce soir, en tout cas moi, je vais dormir plus tranquille ce soir. Parce que j'attendais ce jour-là Si vous avez vu dans mes échanges, j'étais un peu pressé que ça ait lieu parce que ça pesait lourd sur ma tête là, de faire un travail et de ne pas avoir la possibilité de le rendre pour que les gens puissent l'apprécier. Donc, euh, je, pense pouvoir dire, ça risque de me tromper, que nous avons réussi la mission. Euh, pas encore de retour parce que les, les, les autorités n'ont pas encore reçu les, les recommandations. C'est à partir d'aujourd'hui que nous allons nous atteler à, les, à publier les, les, les recommandations. Je l'ai dit tout à l'heure que nous nous étions retenus de ne pas effleurer un tant soit peu le contenu des documents, notamment les recommandations, parce que ça ne nous appartenait pas. C'était pour les évêques. Aujourd'hui, vous avez bien entendu que l'évêque nous a autorisé, n'est-ce pas, à diffuser. Et donc, euh, euh, à partir de ce soir et demain, nous allons partager vraiment les documents d'abord petit à petit, mais il y a des moyens qui permettront aux gens d'accéder plus rapidement, euh, n'est-ce pas, donc publiant le, document documents dans un certain nombre de sites, en plus de, du partage des documents euh, physiques. <laughs> Je pense que de ce point de vue, euh, le, le, le, rapporteur de, de, de, la commission vous a déjà indiqué de façon euh, la plus précise possible qu'est-ce qu'il y a dans les documents. N'est-ce pas Je pense que vous étiez là. euh, le gros document là, comme il vous l'a déjà dit, on a repris in extenso, c'est-à-dire on n'a fait que recopier ou reproduire ce que les gens ont dit, depuis la cérémonie d'ouverture jusqu'à la cérémonie de clôture. Donc tout ce qui a été dit, n'est-ce pas, et à chaque fois on a indiqué qui a dit ça, donc tout ça c'est dans le gros document. Mais celui-là, il a un petit document, nous avons essayé de voir euh, comment aider, parce que ça fait partie de, la diffusion. Quand, quand, vous donnez à quelqu'un un gros document, bon, il va mettre ça dans sa bibliothèque pour orner sa bibliothèque. Ça ne donne pas envie de <laughs> forcément de lire, mais un petit document de pages, vous savez, là on a 400 pages, là on a pages. Et pages faciles à lire, vraiment, ce n'est pas écrit en français compliqué, n'est-ce pas Nous avons autant <laughs> que de faire ça en français facile. Donc accessible à tout le monde, quel que soit votre euh, votre niveau. Vraiment, c'est l'effort que nous avons fait pour, pour faciliter le, le partage vraiment du document. Nous sommes prêts aujourd'hui plus qu'hier. Plus qu'hier. J'ai dit au départ qu'au départ, c'était une ambition. On ne savait vraiment pas ce que ça allait, ça allait donner. On allait un peu à l'aventure. Vraiment, on a pris des risques. Vraiment, on, on a fait beaucoup d'efforts, n'est-ce pas Mais on voit aujourd'hui que euh, le travail que, vous, que nous avons fait, euh, si nous ne l'avions pas fait, ce serait, disons, un grand trou dans notre histoire du Sénégal. N'est-ce pas Et donc, plus qu'hier, nous sommes prêts à continuer le, le travail que, que nos évêques voudront bien nous, nous, nous, nous, nous confier. Euh, les raisons sont multiples. L'évêque vient de dire que ce qu'il y a dans le forum là, ne s'adresse pas d'abord aux évêques, ça s'adresse d'abord à chaque citoyen sénégalais. Et donc chaque citoyen qui peut apporter quelque chose, n'est-ce pas, à, à, la traduction en fait, à réalité des conclusions de, du forum, euh, doivent s'y engager. Et c'est dans ce cadre que nous estimons que euh, nous devons encore pouvoir continuer à, travailler, n'est-ce pas Donc, euh, toutes les contraintes que nous pouvons rencontrer, les prières des évêques vont nous les balayer. <laughs>